une femme euh, benen bi si topp mooy Mamadou de Kane aussi ni mu def démb ñëw à la télévision expliqué fa jot ñoom ñu génn le monstre bi ñu doon wax monstre kay nekkete monstre bi mu ngi woon ci biir monstre bi nekk fa woon nekkete monstre bi kay mu ngi doog a ni parce que dañuy dem ba fin de règne ñuy doog wax le monstre est toujours là te monstre bi dañ ko doon provoqué monstre bi fi jógee dañ ko daan provoqué mais monstre bi moo attaqué moo provoqué moo décidé wax naa ko dafa bëgg tuer le journalisme mais cible ay ciblé Bougane ciblé Aïssatou Diop mën a Maïmouna fay cible ma Madiambal Diagne bu mu tax nga ne da ngay éliminer presse bi parce que ñooñu mënoo ci ñoom dara. Maïmouna Ndour day exister Bougane day exister Madiambal day exister Youssou Ndour day exister parce que c'est pas la personne de Youssou Ndour mais c'est Youssou Ndour y a des hommes courageux comme Babacar Fall y a des hommes yu fa nekk mënoo leen disparaître. yóbbu ay lettres ci impôts def sama gëstu xool la manipulation ne passera pas. ban intérêt la Bougane mais bougan devrait être en règle parce qu'il ne faut pas que les journalistes débarquent li am c'est la légalité li waxtaan am mooy am ont ay brèches yu dem mais il ne faut pas en profiter d'une situation parce que li Ahmed Aïdara di def c'est de c'est n'est est en train de les mais Babacar Fall nag réew mi bu doon démocratie de la ñu ci état autorité warul article 80 daf ko parce que Babacar Fall la démocratie la liberté de la presse indiscipline la def mooy Babacar Fall dafa réew yaruwul waaw déet yow tamit lu def du chronique Babacar Fall li def du chronique lan la kon dafa ñëw ne dafay dafay taasal gor dafa ñëw ne day uñu sutura kilifa non lii moom chronique la lu ci indi lu ci indi mais Babacar Fall parce que gisee groupe futur media kaawu Youssou nga xam ni il a perdu ses intérêts auprès de Macky Sall mu parce que nitu intérêt là, il fonctionne que sur ses intérêts. pourquoi tu wax la jarat ngeen ba kaaw parce que lu ma indi la loolu mooy ñoom dañoo jël seen communication génne seeni armada tek, parce que ku mel ni rakkam Bouba Ndour dafa tok ci plateau ne dialogue gi fi mës am yëpp ben baaxul waxul dëgg parce que dialogue moo indi TFM bu nu waxtaanul woon dialogue Youssou Ndour du am télévision. am créé en plan de dialogue mu TFM. dedet parce que bu fekkee xale nga wala fekkee woon histoire TFM ñaata at mënuñu koo nangoo jox seen licence ñaata nit ñoo dox ci diggante bi. pour ba pour maître Abdoulaye pourtant maître avait raison parce que maître Abdoulaye daf ne dafa am lu laqatu ci ginnaaw télé bi mooy télé bi télé bi jot sur le plan communicationnel. te télé boobu ak rajo boobu bi ñuy jële fi Ablaye Wade télé boobu ak rajo boobu bokk nañu ci ñi nga xam ne dañu associé woon ak M23 ak ñi nga xam ne ñoo contrôle Ablaye Wade pourtant Ablaye Wade am na raison loolu moo tax nga gis position ferme ñoom bi ñuy am bu ñu waxee Karim Wade wala bu ñu waxee Ablaye Wade te pourtant c'est le même Youssou Ndour quand ses intérêts étaient aux côtés de Karim Wade ak Ablaye Wade boo xam ni ni musul teggi moo doon way naan nañu bàyyi Ablaye Wade mu liggéey mais jour bi ko Ablaye Wade licence télévision bi jour bobu lañu braqué wu contre Ablaye Wade jour bi Karim wad ñëwee ñu braqué wu contre ñom mais si ñu wat fi c'est parce que ñun dañuy alerter. en premier lieu. Mhm. je prends l'exemple de Babacar Fall ku ko défendre na fekk nga. parce que Babacar Fall acte d'indiscipline la def. Mhm. waaw dafa def acte d'indiscipline li Babacar Fall def ñeme na ko def Youssou Ndour de presse ñemewu ko def Youssou Ndour patron de presse am la xew biir D-Média ak la xew biir TFM di am ay injustice di am foofu ci ay nit yu ñuy toroxal ay journalistes di leen sonal Babacar Fall musu ci wax mhm. et que RFM boobu muy wax muy RFM matin boobu muy wax tout ce qui se passe concernant Youssou Ndour et boobu du ko wax parce que ñoom ñoo koy fay salaire mais le président de la République c'est le président. dañu fen fen fen fen fen fen baax na baal leen fen mën a fen asalaamaaleykum <laughs> ah, sama gars yi maa leen di ziare di leen bëggee di leen jox seen wàcc waaye di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné di like vidéo yi di leen wax ne maa ngi ànd ak Serigne Moustapha Mbacke di seetu Serigne Abdoulahad Mbacke di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóor rek yàlla mooy na ko si tawfeex bu baax a baax a baax a baax ku si am jafe-jafe rek daal di jokkoo moom ci numéro bu baax mais day ñaan tamit Eh, dof bu mag bi dof bu mag bi dañ ñii la jël dajale leen si télé bi ndeysaan <laughs> ay sa waay mooy nit koo xam ne maanaam ñi muy xas démb day xëy suba tagg leen ñi muy tagg tey suba day xëyaat xas leen maanaam yow kenn xamul ban façon nit nga quoi te man maanaam gars yi su leen di vaar quoi man damay toog ba mu yàgg ma ne attends man est-ce que nekkul ay mike laay vaar quoi parce que être humain quoi nekk nga nekk nit nekk doomu aadama sa bopp yàlla macha allah bu wéree di woo wéree di wéree di xel ah macha allah nit nga quoi nga yor xel di xalaat ba noppi naka nga mën a nekkee genre nit bii daal maanaam nit boo xam ne daal amoo rusukaay amoo looy jomb amoo kersa amoo gàcce lu la neex nga wax tey suba nga ñëwaat génnaat ci ba set koo xas tey ne dafa bon boo xëyaatee suba taxawaat jàkkaarloo ñi nga toogaloon ne waat ki ma doon wax démb dafa bon tey dafa baax. seetetetetetet hmm? ah man de wax dëgg yàlla am na nit am na nit yu yàlla may lool lool man damay toog mu yàgg ma ne man man est ay mike jàpp fii di leen di leen vaar yaakaar ne ay nit lañ parce que tamit nag nit ak noppam nan la mën a nekkee genre nit bi nit ku am xanaa nit sax loo mënti loo mënti ñàkk-ñàkk jëm yenn saa yi boo xasee ba wax dara ci pénc mi rawatina nga wax ko ci caméra ñëpp jot si ba pare xanaa di nga góorgóorlu nag ba sàmm sa kàddu yooyu quoi hmm? mais bëgg yow daal comme si ya nit ñi ay rëboo lañ dal da ngay ñëw taxaw wax lu la neex tey euh, kii dafa bon bu subaa nga ñëwaat nga ne ñu dafa baax bu ginnaaw subaa nga ñëwaat ñu ñëwaat damaa juumoon baaxul woon dafa bonaat ñu ey te waa ji borom borom kër dof yi maanaam xam nga moom mooy dof bu mag bi mais telem bi bañ na ko ba képp ku fa toog di wax waxi nit dala fay jëlee maanaam moom il foog nga nekk dof nekk ku ñàkk jom nekk ku ñeme gàcce nekk ku mën a fen nekk ku amul benn rusukaay mu jël la teg la foofu chaque jour ngay feeñ ci écran yi mais boo xawee am tuuti dignité looy rus looy jomb yow non da lay yóbbu frigo moom wala sax mu dagg sa contrat <laughs> hey est-ce yàlla baax na yàlla nañu yàlla dool sutura rek mais man ñii jàppee ma leen ay nit de lii moom rëboo moo koy def moom waaw dimbali leen ma nag bu fekkee nag maanaam maanaam affaire yi dafa am lu ci rax ngeen wax ma ko parce que lii nekkatul nit nit ki noppam xaw am tuuti deret buy buy daw sa yaram bi tuuti sax yenn saa yi nga xaw a toog sa yaram bi ne cur nga sentir na tey jii kat ah. sama way tay mom war na ma xoolaat sama bop sax yeen say sax mais dara ñi waxal ki bax na suba nga nañu bon na ah gis na Ahmed Aidara mer fi di la tontu ah mané Ahmed Aidara xamul ki mi waxal ki nako ko bàyyi ñun ñi ki ki ñun ño wara defante ak mom Ahmed Aidara bu tontu ñi ah ñi nga xamni duñ ay nit ay rëbo lañ ñi duñ ay nit parce que nit day am lu muy jom sax au moins ñi ñàkk jom ba man mm, nga lu may bañ a tudd rek ah <laughs> yalla baax na. Parce que où sont les assises de la presse Hier, le président a reçu les patrons de la presse. il a Defal amnistie de 40 milliards. Aujourd'hui, il y a combien de journalistes qui n'ont pas de contrat On eu la convention des jeunes reporters qui nous parlait que les journalistes ont un contrat. Où sont les patrons de presse Ils ne savent pas ben moment, c'est une crise, ils ne savent pas un journal ou un journal. Ils recevoir 40 ah, euh, milliards. 40 milliards, ils ont un impôts, qui ont dag ci ki jaay ci mbedd bi dañ koy jël ci salaire yi dañ koy jël ci lépp nga jël ko may ko ay patron de presse et que ñu ne El Hadj Ndiaye moo facilité loolu ñu wane fa des grands patrons de presse li jotaay boobu di rëy rëy may mun a nduur si la njëkk apparaître parce que c'était très important mais xaalisu jàmbur boobu ñu leen may fuñ ko teg et ces assises je continue de réclamer journalistes ndax liñ doon woote gëm nañ ko wala gëmuñu ko parce que mënuñu woote ne assises yi moo am problème on doit assainir président ne indi len assises yi ma def ko loi pendant ce temps on voit les patrons de presse dem pour ñu baal leen seen bor baal leen amnistie yow daal da ngay da ngay da ngay sol say super saw fen dal fen simis fen di rek di du di rek di du rek <laughs> wër ba melni fas gi nak la gis ko fas gi nak kenn ku nek xamna Cheikh Sidil mukhtar mm-hmm. muy mam ci Cheikh abdul Aziz borom keur ngan nak ki nga xamne nak mo don juroom ñaari khalifa Serigne Touba batin bu wër ko lol wa nak mu don ko ci mam Cheikh mohammed Lamine mm-hmm. Serigne abdul Aziz ni Don fas gi ci maamam Cheikh Sidil mukhtar mm-hmm. Serigne bi may deg ñu nan fas gi ku ko tak manam tan gañ nak neena tungul tungalu di teew gaañ na dal yaram yaangi ni gañ yaangi ñi lay waye fas gi dal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 Euh, jàngoro mboolem docteur dañuy docteur mbindeef yi ndax ku kuy jébbu kuy jébbalu sëriñ mm-hmm. da nga naan naa la sama bopp àdduna ak alaaxira kon yittee àdduna dafa jiitu mm-hmm. waaye fas la goo xam ne ndax mm-hmm. euh, euh, wàllu fas dafa doon gàllaaj goo xam ne doo dem ba fekk ko ci benn téere comme ne la biirun baarun sasa saxit mujjub waxaaf jana fa jana fa min muksin xam nga xeet loolu ma la wax ay jat la te jat du loo xam ne téere ba doo benn doo xool benn téere ba gis ko waaye fas ngi goo xam ne mhm. mboolem koo xam ne am nga jafe-jafe néew kàttan néew kàttan waaw néew kattan néew kattan waaw jafe-jafe néew kattan mhm.